boo amee sa jeunesse xëy na emploi bi nga xalaat ne mën nga leen renforcer pour ñu am ko amuñ ko ñuy jéem dara. naam dafa illégal chaque jour mag préciser ko. mais kooku dangay ngay xool noonu organiser jël nañ fi une fois mais amuñ pexe. amuñ leneen lu ñu def moo tax ñu nekk fa di góorgóorlu. tey bu leen neexoon dem defi leneen mais dama jàpp loolu ñu def nañ ko defaraat organiser mais beneen bi lu ñu gën a yuuxaloo mooy euh, ba problème ba léegi vente bi doxatut. ndax déjà nit dañoo tiit. dañuy toog seen kër dañuy toog seen kër te yow mii tey doo dégg coole la da ngay déplacé dem marché doo ko def. keneen ak keneen ak keneen. soo fa demee doo fa fekk dara. doo fa fekk parce que j'ai vu aux HLM que même les boutiquiers demuñu renouveler seen i seen i marchandises dañuy xaar ba situation. bi même hier hier beaucoup de boutiques 15 heures fekk nañu tëj seen boutique dem ñibbi seen kër. par mesure de prudence dama koy préciser xam nga tey tabaski seet bi mooy da 28 la foog naa xaw ma la 29 ñëw na daanaka. actuel tabaski ok presse présentement Sénégal rawatina dakaar gi ñu nekk doo dem benn magasin muy renouveler bagage am ndax dafa ragal mm. dafa tiit ndax da ngay xalaat boo indee bagage yi coow li kañ lay jeex lu commencé kenn mu lay jeex mm-hmm. lu ñaan mooy ne ñun jàmm ñuy jikk moom lañu bëgg mm-hmm. di opposition di pouvoir la ñuy waxal ñun mm-hmm. tey toogu fi en tant que homme politique dañuy toog en tant une personne neutre di nekk si organisation di xam ne day indépendante si loolu moo tax ñu toog fi tey lii ñaan mooy nañu sóoraale population bi xam ne ñun ñoo lañ jox force bi nga xam ne moom lañu am pour que ñuy jàppale nit ñi day am si dëkk pouvoir day day gouverner ñoom dañu war a waxtaan xool lu ñuy dégle intérêt Sénégal mais waxtaan nag nañ ko lal si dëgg mu mhm. nga xam ne kenn nax li ma gis léegi Sénégal dégg naa ko dem kilifa mooy mi ko wax Sénégal léegi ku nekk yaa ngi mer da ngay toog donc booy seet ku nekk yaa ngi mer mbir pour lan la dama jàpp un grand responsable wala un leader da war a benn xol idéologie d'apaisement bañ chaque jour lu jóg nga bëgg a mer bëgg a jaay doole kay bëgg a fippu loolu barrangé wul si suñu nga xam ne dañuy góorgóorlu